maa ngi toog sax di dégg beneen kuréelu amateur mais loolu man ça m'a mal. les jeunes amateurs. les jeunes amateurs amul fen li am mooy làmb ji benn njiite fi am dañ koo fal muy du jànjekoo ñi fi nekk ci làmb ji lañ ñu fekk kon kay ni Guédiawaye créé bureau bureau des amateurs am Pikine créé ko ginnaaw raay créé ko Yarax créé ko keneen créé ko réew mi benn président la am muy président de la république. njiit bu mu mën a doon bu ko ay nit falee ba jiital ko xale yi bu ñu bëggee folli ki fi ne nañu dem ba élection ñëw ñu indi seen doole jële fi du jànjekoo mais ñoom bu ñuy wax loolu dañuy xam ni seen bëgg-bëgg la rek ak yàkkamti cër mais fii benn cëre fi am du jànjekoo moo ko yor te ñi ci rajo yi ak télévision yi nañu wax dëgg mënuñu xale yooyu ñëw ci ñoom di leen wax ay jeunes amateurs ñu di leen bàyyi pour ñuy développer loolu mooy indi ñaari nguur benn nguur fi ne Macky Sall laa ko benn nguur a nekk ci làmb ji du jànjeekoo moo ko yor kan moo yor football bi Augustin Senghor est-ce que dafa am beneen beneen président bu dul Augustin na ñu jël mbir yi li ngan ko football moo ngan ko làmb moo ngan ko réew mi réew mi dafa ay textes yu ñuy fale fal na ñu du jànjeekoo moo fi ne jeunes yooyu dañuy ruubee rek ñun gëmuñu leen xeer wu nu am na nañ ma ko sànni attan naa ko ba nga laaj ma leneen